soxna may Maymunatu Mbàkke soxna may Maymunatu Mbàkke mi ngi feeñ jamono ci atum 1925 ci dëkk bu sell boobu di njaareem muy doomu soxna xari sill ak ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim soxna Maymunatu Mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xaddiim nag amul kenn ku mu bokkal soxna xari sill daaru mi benn bant la ci waajuram wu jigéen xamul waajuram wu góor woow di xaadim rasuul laataa muy xàmmee xaadim rasuul génn na àdduna ci atum 1925 la feeñ jamono waajuram xaadim rasuul ci atum 1927 la làqu at la ak i weer rek la nekk ak waajuróom woom woowu waajuróom wu jigéen wi di soxna xari sill daaru mooy ki ko yar bi mu matee dal alxuraanul karim sëriñ alsaan jaxate nag lañ ko jébbaloon sëriñ alsaan jaxate moom nag moo ko jàngal alxuraanul karim ba soxna maymunatu mbàkke bind sëriñ tubaa seexul xaddim mokkal alxuraanul karim bi mu matee dal nag lii di xam-xam magam cheikh mamadul faadal mbàkke moo ko jàngal nag lii di xam-xam soxna maymunatu mbàkke bint sëriñ tubaa seexul xaddim ci ñaar ñooñu dong nag la jaar ci wàllum njàng ginnaaw Mbàkke Cheikh Modou Moustapha Mbàkke nag moo ko tarbiya moo ko yar moo ko yóbbu nag lii di kër bi soxna Maymunatu Mbàkke bintu Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim nag tee dem nag lii di kër Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke moo ko jébbal nag rakk doomu baayam boobu nag nekkoon ci Daaru Muxti di Sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke ibnu Maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru soxna Maymunatu Mbàkke bintu Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim dem fa nag liggéey fa nag ci wàllu kër keroog bi muy jébbal Sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke kii di soxna Maymunatu Mbàkke bintu Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim ndinkaane bu yaatoo yaatoo yaatoo yaatu la Cheikh Modou Moustapha Mbàkke nag def nag ci rakkam jooju di soxna Maymunatu Mbàkke di ko wax nag su demee ci dëkk boobu nag di daaru mu bañ a jàppe sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke moroom waaye nag na ko defub sëriñ ngir liggéeyal fa nag Xaadimu Rasuul loolu bokk na nag ci li ko mën a jàllale bu ëllëgee yow mal xiyaam soxna Maymunatu Mbàkke fàttiwu ko nag ci diirub ab dundam soxna Maymunatu Mbàkke sax bind na ci sax ay way ngir nag di wax nag ni ko Cheikh Modou Moustapha doon kañe di ko ñaax keroog nag bi mu koy yebal nag ci dëkk boobu nag di daaru muxti mu dem nag liggéey fa ci jëmm nag di sëriñ Balla Mbàkke bañ koo fàtte nag taxoon na soxna Maymunatu Mbàkke nag def ci ay way saa bu xëyee nag di ko jàng ka way ngir xam ne ka ndigal lii moo ko bàyyi daaru muxti ñu teewlu way yooyu soxna Maymunatu Mbàkke defoon Cheikh Moustapha noon na ma jaamu yàlla booleeg liggéey mooy tax a gis buur yàlla amal ngor ak jom fonk jaamu yàlla seexlul bidaa roy sunna mooy la yella Cheikh Moustapha noon na ma jaamu yàlla moo yor kërug laaxira jaamul yàlla Cheikh Moustapha noon na ma dee liggéey moo yor kërug àdduna nan liggéey moo tax ma toog daaru di jaamu yàlla yàlla booleeg liggéey ak sax ci sant yàlla yàlla na nu seex bamba defal karaama ba su ndigal yi bañ a am malaama noon na ma toogal daaru sayxu bamba moo la yoral boppam kasaa yonen ba toog naa fa gis waa kër sëriñ tuubaa ay yooni yoon ak mbër ya raw ca ngir ya jëflante naag ñoom ba xam ci saam xel yoreenu Seex Bamba xajul ci ab xol Seex Bamba kenn du moom te moom du kenn kenn mus la gis ku mel ne moom ci fenn Seex Moustapha jikkoom ju sell jaa tax mu naa ma moo di nit ngir mooy tax mu mën a sàkku ngërëmal kam nekkal di jéem a dab bànneex mam bañ koo def kal nekkin wa gën mooy suturaal ko yëg ko ci rayu lu lay sange te wax ko jëf ko kon maa ngi toog fii daaru sàkku di sàkku seen ngërëm di Cheikh Bamba di jaay Cheikh Sidiye doomi Bamba Cheikh Moustapha noonu na ma sun baay Cerno mooy sayxu Bamba moo yaroon maam Cerno rakkam la taalubeem la dib xaritam mooy wóllëreem wum wóolu woon ci baatam taalibe bañ yar mooy ka neex a àndal àdduna ak laaxira neex a dendal waaju dul tooñ mukk te soo ko tooñee mu daal di lay jéggal wares na ko ñee del fekk nit ca lay jikkoom ngeen ànd ndem sopp ngaa te bañ ngaa dend mu wéy nag nekk daaru muxti nag ci loxoy sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke miñ ko jébbal sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke nag yoroon na ko itam ci dëkk boobu nag di daaru muxti ginnaaw daaru muxti itam yóbbu woon na ko nag ci daaru marnaan di dëkkub sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke mar naan nag soxna Maymunatu Mbàkke bintu sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim kii di sëriñ Cheikh Awa Balla na ko nag ci dëkk bii nag di daaru waxaab soxna may nag ci ba ni ko Mbàkke ko wax ne nag mu jege si Tuubaa booba itam nag fekk na nag kii di sëriñ Cheikh Awa Mbàkke nag bàyyi koo fi na kii di sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke nag ñu man cee ràññe soxna Baali Mbàkke bintu soxna Maymunatu Mbàkke bintu sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke sëriñ Muhammadul Mahfous Mbàkke ibnu soxna Maymunatu Mbàkke mbàkke ibnu sëriñ cheikh awa balla mbàkke ak seen rakk ja soxna faati mbàkke bintu soxna maymunatu mbàkke bintu sëriñ cheikh awa balla mbàkke soxna baali mbàkke bintu sëriñ cheikh awa balla mbàkke ak soxna maymunatu mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xadiim bi mu matee dem kër sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma lañ ko jébbaloon ba tax na am naag sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma ak njaboota ñu ràññee ci sëriñ cheikh abdul axat mbàkke ak ay rakkam sëriñ mohamadul mahfous mbàkke ibnu sëriñ cheikh awa balla mbàkke ibnu soxna maymunatu mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul seexul xaddiim moo yore nag ndonal soxna maymunatu mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xaddiim ñetteelu doomu soxna maymunatu mbàkke ba mooy ku ñuy wax soxna maam faati mbàkke bintu sëriñ cheikh awa balla mbàkke bintu soxna maymunatu mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xaddiim bi mu matee dem kër moom soxna maam faati mbàkke cheikh mohamadul moustapha mbàkke fàllilu nag lañ ko jébbaloon di sëriñ moodu bu sa jëng ba taxoon na amoon nag njaboot ak kii di sëriñ moodu moustapha mbàkke fàllilu ñu mën caa ràññee ku ñuy wax sëriñ seexu naa mbàkke waajuram wu jigéen woow nag di soxna maam mbàkke bintu soxna maymunatu mbàkke bintu sëriñ cheikh awa balla mbàkke bi mu nekkee ci loxoy sëriñ moodu mustapha mbàkke fàllilu di sëriñ moodu busa jeng foofu sax la génnee àdduna taxoon na soxna maymunatu mbàkke nag doomam jooju bi mu génnee àdduna mu jooy ko nag jooy yu metti di santaale nag suñu boroom tey ñaanalaale nag doomam jooju di soxna maam faati mbàkke ngir fa mu tëdd nag suñu boroom yërëm ko te xare ko ajjana ma ngi koy jaalaale nag kooku mu jooju di xaadim rasul mu teeru ko ak maamam jooju itam di maam Cerno a Faati Mbàkke ndaamal daaru mi ngi wax itam mbooleem taalibe yi di leen wax ne ñun ñëpp ñoo bokkoon soxna maam Faati Mbàkke waaye dem na maa ngi sàkku nag ci képp koo xam ne nii nag ginnaaw ba nga yigéen ne soxna maam Faati Mbàkke làqu na soloon nga saw dal la ñëw jaale si ma maa ngi la koy jaalaat ndax kan ñun ñëpp ñoo ko bokk ñu teew teewlu way yu soxna Maymunatu Mbàkke defoon nag ci doomam jooju di soxna maam Faati Mbàkke maam Faati Mbàkke balla may sun doom ja laa bëgg a jaale ja mboolem ku delloo koo mën a doon siggal ndigaale nan ko jéegoy ñëw ak jéego yam doon delloo Cheikh Bamba yàlla na ko ca fay lum doyloo maam faati Mbàkke dem na ñëpp jooy na néeg ba mu génnee faatu doom ya néew na Cheikh Awa Balla Mbàkke maa ngi lay jaale maam faati Mbàkke doomi Seydiri jaali yaa di sunub sëriñ te noo ko bokkoon taalube yeeg murid yi ñëpp a bokkoon di jooy ndawem gaak yaram ba ak taaram ba ak teel dem gam dem ci say xibam sittatu xaadimu rasuuli dem tekki sëriñ tuuba xanaa kon raw na yàlla na ko xaadimu rasulu teeru ànd ak rasulillahi may basiru ci darajey seexul xadiimi maamam ak darajey maam cernu may maamuumam yàlla na ko fatimatu bintu teeru mook soxna musleek soxna may kabiru amina amina ne leen amina ci darajey kane ma woon maymuuna mu wii nag nekk daaru muxti moom soxna maymunatu mbàkke bintu sëriñ tuuba seexul xadiim ba ci atum 1950 ci atum 1950 nag kim yaakaaroon di sëriñ cheikh awa balla mbàkke yóbbu ko nag ci marnaan ci atum 1950 googu ci laylatul xadar googu nag la soxna Maymunatu Mbàkke nag toggoon ñaari ginaar topp guddi gi nag yit si ko magam ji Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke nag ngir jox si ko ko nag addiya ndax guddig laylatul xadar googu keroog bi soxna Maymunatu Mbàkke di jóge nag ci dëkk boobu di daaru marnaan otob Ahmadou Muxtaar Mbaw mii ñépp xam ci wàllu politique nag moo ko indi nag jële ko daaru marnaan indi ko Tuuba ginnaaw bu mu indee reer boobu bintu sëriñ tubaa seexul xaddim def kañ ko ca ñaax ko ca ñaanal ko ca nag di ko wax ne nag lii nga def nag muy guddig laylatul xadar gii nga fas yéene dundal tey jii ba togg ñaari ginaar indil ma ko danaa ñaan nag ci kàttanu suñu boroom ak xaadim rasul mi ñu bokk suñ boroom fulal la ko ba la nga cay séentu lépp nga man koo am lii mooy sababu laylatul xadar mu wéyal ko nag di ko màggal ba ni mu génnee àdduna ci atum ginnaaw daaru marnaan ak dëkk bi nag di daaru moxti ci atum 1959 Balla Mbàkke nag gor nag dëkk boobu di daaru waxaab mu dël fa nag soxna Maymunatu Mbàkke bintu Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim soxna Maymunatu Mbàkke bintu Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim googu itam daana màggale foofu itam ci daaru waxaab laata di sanc daaru waxaab kii Faadal Mbàkke woolu woon na soxna Maymunatu Mbàkke foofu nga nekk itam nag ci daaru Muxti sa waajur wa Xaadim Rasuul kontaan na ci lool bég na ci lool takkaayu àdduna nag du dara nga am takkaay bi gën a foor nag mooy nag nga wéy nag nekk nag ci loxoy Sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke fonk ko lool daaru muxti googu nga nekk nag wan nga ma fa ngor wan nga ma fa jom waaye wéelal rek sax nekkin ndax kat sa waajur wa xaadim rasul gërëm na la cheikh mamadul faadal sax keroog mi ngi ñaaxaale soxna may di ko wax ne sa waajur wa xaadim rasul mas na ñoo di ñu wax ne daal sàkku barke mooy nga am ngërëm te toog nag fañ la dël aaliye la ko woolu woon bis ba itam bisub altine la woon weer wa weeru koor la woon heure ba ab yoor yoor la woon ginnaaw bu mu wuy see cheikh mamadul faadal mbàkke ba noppi nag wax jii nag la ko mu dul faadal mbàkke wax ñu teewlu ko fallu moo ma woo xool woon fa xaaliya ma ñëw mu am salaamatan wa aafiya may bëgg a toog fa suuf mu jox ma ab siis dal ne ma toogal yaay ko kenn dootul siis sa bàyyi ruuj bay ñor le togg séddale moom rek moom ñam yi ñu toog di dënale ba mu jógee jëm ci di sàkku lii mu am du doom du taalubeem du mbokkam mu mu am Cheikh Bamba yal na nu musal mosal nu yokk sunu fan te wéral ñu yor ñu jotaay ba altine la waxtu yoor yoor fii sëxëri ramadaana taw na fay yóor yëgal ne am nga saa ngërëm fa am nga ngërëmal xaadimal waaru keroog la naa lu sàkku barke mooy sa takkaay fa daaru bul ko tekki barke taxoon Cheikh Bamba daanu woolu naa jébbulooy faj aajo maa ko wóolu yëgal ne am nga saa ngërëm fa daaru wan nga ma ngor ak jom te toog nga daaru xam naa ne yow gërëm la am nay firnde Cheikh Bamba ànd na ca moo di gaynde yàlla nanu Cheikh Bamba defal karaama ba suñ liggéey yi yegg bilaa malaama yërmande ak ndimbal na boole lépp may nu ko nun yoonu murit wi wépp Cheikh Bamba yàlla nanu nu kàttan yokk awjaa'i lanbiyaayi wal mursalina mahalawliyaahi mu wéy nag des nag ci loxoy sëriñ cheikh awa balla mbàkke ba ci atum 1959 sëriñ cheikh awa balla nag gor dëkk wax daaru waxaab dool fa soxna may ba mu wéy nag nekk daaru waxaab ci ndigalu sëriñ cheikh awa balla mbàkke di tarbiya nag kii di sëriñ cheikh awa balla mbàkke ndax ay magam kat loolu lañ sàkku woon ci moom ba ni sëriñ touba cheikh abdoulahad mbàkke toogee xalifa général des mourides moo sàkku woon ci soxna maymunatu mbàkke bintu sëriñ touba cheikhul xadim mu delsi waat nag ci jigéen Cheikh Abdou Lahad Mbacke ma ngi koy wax na nga def daaru waxaab googu nag ay tool heure boo leen nammee wala nga bëgg faa dem nga dem toog fa bi mu ñibbisee Touba nag la féete nag ci kër gi ñu ko joxoon nag bi ñuy natt dëkk bi ci 1960 muy kër gi ñuy màggale laylatul xadar ci marché Ocass ci kër googu nag la nekkoon ba ci atum 1997 mu dem nag fi ñu tudde HLM ñu koy wax HLM soxna munatu Mbacke tabax fa kër gu ñu tudde résidence laylatul xadar di fa wéel nag màggaluk laylatul xadar gi ba ci atum 1999 mu génn àdduna laylatul xadar googu sax cheikh mamadul faadal mbàkke keroog bi soxna maymunatu mbàkke toggee ñaari ginaar yi ba indil ko ko cheikh mamadul faadal mbàkke nag mi ngi doon xamal soxna maymunatu mbàkke sa ñaari ginaar yi bis dana ñëw nag lépp luy da nga ko togg nag ci guddi gii mas na cee waxtaan ak sëriñ na nag ci soxna maymunatu mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xaddiim génn ginaar gu ne mu defal ko ko junniy ginaar amoon na ay tool àllarba yuñ jaglee laylatul xadar amoon na itam kër guñ jaglee laylatul xadar am na itam ay doomu aadama sax yuñ ñu tudde laylatul xadar ngir fonk gu soxna maymunatu mbàkke fonkoon bis boobu di laylatul xadar soxna maymunatu mbàkke bindoon nag ay way jagleel ko nag murit bi mu gën a farlu nag ci njabootu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim suñ bëggee jariñu ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim nañ ko fonk fonk ay doomam fonk itim murit yi mbootum sëriñ tubaa seexul xadim da koo tasaare kenn xamul nag fan la nekk nag ci njabootu seexul xadim gi képp kuy murit nañ la fonk ndax la murit yi baree ay façon bi am solo ba am solo ci biir murid yi mooy bi nga xam ne nii daal kum gis fonk ko te nangoo nekkub taalibe way yooyu daal la bindoon doon ñaax murid bi ñu teew la way yi soxna Maymunatu Mbàkke def ci murid bi naka la mën a pëstéefoo ba mën a am nag aw tur ci yoon wi déglul ma dénk la nga dolli koo ko koo mën a doon del dolli koo ko yokku sooy def murid defal murit saadex ba ne déeg ne géej ne dex sore naag deq ba ëppaate ak murit lu wér lu am la ni defukaayu ndox yi mel luñ xam la ndax mbóotam ya nan maase def doomam yi ñuy jëmmam ja nu def xasaayidam yi muy waxam ja lim nu digal moo di liggéey jumaa ji bam yegg nuy jullee ko xeñtu waa ji banaa liyal baaxi binaa an baaxiya bi xayri hëddinin lil jinaani iraaqiya yàlla tabax na ko du màbb yéeg naa ba yegg aljana la wax lii rey na liggéey ci ak def ci alal ngir yàlla xam ngeen ni eggale na nit fa yàlla Cheikh Bamba léppam dafa dooni xar baax yàlla na nu xéewale soppi baax yi xar baax Cheikh Bamba yàlla na nu jàngoro ji feesal te may nu fan wu gudd may nu barke def nuy murit yu am ngërëm yu tekki yàlla na nu may wér may nu listiqaama may nuy ngëneel yu sax bilaa maa ngi dagaan man soxna may mbàkki yu Cheikh Bamba dimbale nu nuy sakki yu soxna may mënatu mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xaddim na ku doomu seexul xaddim yi fonkoon la magam cheikh mamadul moustapha mbàkke moo ko yar moo ko tarbiya moo ko jébbali tim na kii di sëriñ cheikh awa balla mbàkke soxna may mënatu mbàkke nag na nag seede yu am solo magam jooju di wax ne jortul wël ne ñoo rasul waaye taalibeb xaadim rasul la ko tegoon ndax nangu gu seex mamudul mustapha mbàkke nangu taxoon na soxna maymunatu mbàkke wayoon seex mamudul mustapha mbàkke ay way seex mamudul mustapha mbàkke ni mu fonke woon doomu xaadim rasul yi ba daana def saa su ne mu leen di woolu di leen nemmiku soxna maymunatu mbàkke mi ngi wax ne gaaw bi leen seex mamudul mustapha mbàkke mujjee woolu laata gaaw bay delsi seex mamudul mustapha mbàkke génn na àdduna seex mustapha amul moroom lam daa wax mënee su ko roy lépp géejju ak dex gaaw ca yor yor lañu tàggoo bayti mu dellu tuuba fil bayti ndekete woo day tàbbi fil jinaani fil yawmi jumhatin falay fanaani neexoon ma doon kat ne seex muusa ka ba jooy ko marsiyal ko koo ka baaraka muudu kabir ka doomu seex muusa ka wayle ma ngir ñu roy sëriñ muusa ka mooy werekaanu yoonu sayxu bamba amul moroom kenn du moom baneem baa jasaaka laahu fii ka seex muusa ka xayral jasaa yi ngeen ji say honaaka seex mamadul faadal mbàkke moom itam ko amoonuk jaxasoo la ak kii di soxna maymunatu mbàkke bintu sëriñ Mbàkke sax moo jàngal soxna Maymunatu Mbàkke bindu Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim xam-xam bis bi soxna Maymunatu Mbàkke di fàttaliku itam di laylatul xadar Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke moo ko ci jox ndigal ñaanal ko ci na Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke itam bu nit masaa ñëw di mu leen da ngeen ca jotta Cheikh Faadal Mbàkke boole woon Senghor ak soxna Maymunatu Mbàkke ndax Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke la relation boobu Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke boole woon ak Senghor moo tax itam bi fi Senghor di bàyyi bàyyi ko jàpp Abdou Diouf itim boole kook soxna Maymunatu Mbàkke waajuru Abdou Diouf mi fi nekkoon président de la république di soxna Kumba Dem ci diirub li fi soxna Maymunatu Mbàkke nekk moom itam mu nekk fi at mu jot itim laylatul xadar gi dawu ko tardé daanu fi am sax lu ëpp juróomi fan relation boobu Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke boole woon Senghor ak soxna Maymunatu Mbàkke ndono loolu itim la parti socialiste di wéyal ba nëg ni ci njabootu soxna Maymunatu Mbàkke kon loolu mooy sababu relation bi ba tey itim relation bi Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke boole woon bi doomu président Léopold Sédar Senghor bii génnee àdduna nag di Philippe Senghor président de la république nag bi fi newoon di Léopold Sédar Senghor bindoon na lettre nag Cheikh Mamadou Fadal Mbacké di ko wax ne daal doomam ja nag dafa génn àdduna te mi ngi ci doon sàkku nag yërmandey suñu borom suñu borom nag jéggal ko Cheikh Mamadou Fadal Mbacké nag boole woon na ko soxna may Maymunatu Mbacké bintu Serigne Touba Cheikhul Khadim bëgg-bëgg président Léopold Sédar Senghor boobu nag mujjoon na saafarawu ci doomam jooju nag mu bëggoon nag ak yërmande Philippe Marguerite Senghor moomu nag nekkoon doomu président Léopold Sédar Senghor Senghor bi fi newoon te génn àdduna te Léopold Sédar Senghor nag doon ci sàkku nag ak yërmande moom lañ tudde nag hôpital bi nekk Grand Yoff muy hôpital Philippe Marguerite Senghor soo delloo nag ci way yi mu way nag Cheikh Mamadou Fadal Mbacke moom soxna Maymunatu Mbacke bintu Cheikhul Khadim ma ngay kañ nag jikkoy Cheikh Mamadou Fadal Mbacke ak taxawaayu Cheikh Mamadou Fadal Mbacke nag ci biir réew mi ñu teewlu ko ma dellu sant yàlla ak rasuulu te sant Cheikh Bamba mi am wasuulu te sant Cheikh Fallou Mbacke def na jaloore yoo xam ne ngëneelam rëy na yoonu moog yeggaleeg jumaa ji ñooy am yéene njaboot gi seex bamba am fa tuuba yiw yam ci def wenn du ci riir su boobaa waa senegal yay ñëw ci moom ngir yàlla jëflante naag ñoom ba gërëmloo yàlla mbaax ga ca moom jërul di jéem a bind ci ay kayit réew mii amul fi ndend ak taalu beeg ab yar la daa dénkaane daananu woo seex bamba moo kéemaane mook magam cheikh abdul ahad mbàkke ñu jax jaxasoo lañ woon ba tax na dëkk boobu mu féete woon di daaru waxaapa cheikh abdul ahad ko fa jëlee bintu mbàkke jege leen ndax mooy caatum xaadim rasuul sëriñ abdu xaadir mbàkke itam kasaalika ku fonkoon soxna maymunatu mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xadim la sëriñ soxen bu mbàkke itam kasaalika mbàkke itam ku fonkoon tubaa seexul xadim la laylatul xadar gi soxna maymunatu mbàkke mujjee màggal sëriñ tubaa seex saaliwu mbàkke nag demoon na seeti ko ci asalem résidence ba seex murtada mbàkke mi nekkoon caatum xaadim rasuul ci wàllu góor itam la di soxna maymunatu mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xadim saa su ne itam daana ko nemmee laylatul xadar itim gi soxna may mujjee màggal ci atum 1999 itim kii di Cheikh Mourtada Mbacke dem na fa ku amoon relation la ak ay doomu baayam doomu baayam yu yi itim kasaalika mook soxna Muminatu Mbacke ñoom ñaar moom ay mbokk lañ laataa seexul xaddim te ñoom ñaar itam na ñetti soxna Maymunatu Mbacke bintu Serigne Touba seexul xaddim muy soxna Aminta Kandi Bousso ak Serigne Touba seexul xaddim ak maneen soxna Maymunatu Mbacke bintu soxna Saynabu Mbàkke bintu Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ak soxna Maymunatu Mbàkke mii ñu tudde nag boroom laylatul xadar mi ñuy waxtaane tey jii kon ñetti soxna Maymunatu Mbàkke yooyu moom Seexul Xadiim amoon na leen ay turandoo itam am na ko nag ci ëttub Xaadim Rasuul bi ndax magam Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke tudde na ko doom magam Cheikh Abdul Ahad Mbàkke tudde na ko doom magam Cheikh Abdou Xaadir mbakkee tudde na ko doom magam Sëriñ Soyebu Mbàkke tudde na ko doom magam Cheikh Murtada Mbàkke tudde na ko doom ak lu takkoo takkoo takku nag ci cheikh si ak mag ñi toppoon ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim bari na lool nag ci ëttub ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim soxna Maymunatu Mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xaddiim nag way na waajuram woowu ay way di ko sant ak gërëm ak di ko ñaanal nag ak itam nag di sàkku ñaan nag ci waajuram woom woowu soo demee ci biir way yi nag mi ngi wax ne tey jii kat su nekkee murit mi ngi koy sante bu baax a baax Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke bu xamee xaadim rasul itam ndénkaana bu Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke defoon ci moom itam moo tax mu xam ko ñu teewlu ko alhamdulilahi ma sant yàlla te sant xaadimu rasulillahi war na julit buy taalubeem lillahi tayxu suyooxi sayxinaal xadiimi maa lay biral ak cant lil maqduumi aslamtu nafsi sayxinaal xadiimi nangul ma saa njëbal ki lil maqduumi defal ma man saxaadatu daare ni yaari kër yi mbàkke yaa kër yi bintul xadiim may munatul mbakki yi tilmi satul xadiimi may sakki yi ma jéema way di la siyaare sant ngir yàlla maa ngi ñaan taxaw ne sat bun am naqar aar nu te nan am bànneex jébbaluwaat nan nang nu nandal ndox mu neex musiba yeeg balaa yi nan ci mucc nok kenn di moccu moo tax ba maa ngi dellu sant yàlla moom mi ma sopploo ku xam ka yàlla gëm yàlla ak bëgg donoy rasuulu lu ma masa am moom la ñoom la wóolu xam naa ne bëgg xaadimu rasuulu moo mën a may nippal gu réy gum wóolu mooy sama xol saa bëti xol moom lay gis aw ma kaneen mbàkke te yàlla na ma gis seexul xadiim jébbaluwaat naa maa ngi nangul ma maa njaboot gi ñépp noo ngi moo tax rafet njort ci yoon wi moo gën ngir ku la sopp soppikoom ga doon kon daana sol makkiyu Cheikh Moustapha noon na amal ak taalube moo di mbirum yoon wi defal ak taalube amal ngor ak jom fonk jaamu yàlla seexlul bidaa roy sunna mooy la yàlla moo tax ma daa di jaay sama njureel man jënde ko ak taalibe seex Bamba gën defal nu jannatan ilal jannaati yaari kër yi mbakke bun ñeetaate te may nu fan wu gudd ànd ak barke te fegal nu am ndog noo njaboot gi Mbàkke saa xol cofeel la feese maa la sopp samak cofeel ci yow xajut ci nopp teereel ne aw ma kenn kenn ku dul yow yaay sama sama xol baa ngi ci yow xam naa ne lépp lu ma am ci yoon wii samak cofeel ci yow la yaa moom yoon wii defal nu fan wu gudd ànd ak barke ci darajey maam Balla sa Mbàkke yoonu murit na ñëpp bokk yokk sunub xalifa wér ñu gën fee yokk amina amina bi jaaxil Mustafa sallallahu alayhi rabbuna kama safa man soxna may bintul xadimil Mustafa maay bëgg bind la ma sayxu Mustafa dénkoon ci ak taalibe ngir saaxir sa mëneesu na ko roy baatinam ba gor xam naa saaxir waaye samay mbir yaa ko yor yaa paaxir saa yoo xamee ne maa ngi jëm ci xaadim di ko siyaare ba su jóot nepp xaadam saa xol bi day mel ne galaas akuk suux ngir li mu ñàkk mbooloo mi kenn dootu ci suux jaay naa sama njureel ci say xibam ba jënde ko ak taalibe ngir yoneen ba soxna Maymunatu Mbàkke bi muy tëj nag lii di wala fal gi mi ngi sàkku nag ci képp koo xam ne nii mokkal nga wala fal gi suñ borom defal la sutura ak xéewal li jafe lool nag ci réew mi di xaalis la nga mën faa am kër loolu daal la soxna Maymunatu Mbàkke di ñaan ci képp koo xam ni mokkal nga wolofal googu mu bind maymunatun jaariyatun xadiimi bintul xadiim tilmiisatul xadiimi waaju ko mokkal yal na am kaaraanga te gudd fan te wér te am teraanga yàlla na am xaalis bu lew bum lekk di faji aajoom fu ko soob mu dëkk ma xat mu way wi salawaatu rabbi ala muhammadin wa sallim xajbi nangul nu lii nu ñaan sëriñ tuubaana wa alihi wa sahbihi soxna Maymunatu Mbàkke bintu sëriñ Tuubaa seexul xadim nag mi ngi génn àdduna bisub alxemis fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru korite ci atum 1419 ci gàddaay gi alxemis fukki fan ak ñaar ci weeru korite ci atum 1419 ci gàddaay gi dëppook muy jeudi 4 février 1999 jeudi 4 février 1999 ci hôpital principal ci hôpital principal boobu nag la génnee àdduna ñu jële ko ndakaaru nag indi ko nag ci dëkk bu sell bii di Touba ci xilaaf ak magam Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké mbàkke moo woolu rakkam ja cheikh murtada mbàkke ibnu xaadim rasul moo taxawu soxna maymunatu mbàkke moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam nag ci booy dugg ci armeeri ci sa loxo nday joor ci wetu xay gi ay xalifaam nii la tëddee sëriñ mohamadul maxfuus mbàkke nag moo ko wuutu ci atu 1999 ba nëgëni ànd koog magam ja nag soxna baali mbàkke bintu soxna maymunatu mbàkke ñu leen di ñaanal suñ borom guddal seenu fant wéral seeni cër te yàggal leen nag ci toogaayu soxna maymunatu mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xaddim boobu am na nag bindu sëriñ tubaa seexul xaddiim muy bis bi mu daa defal boppam di laylatul xadar bis boobu nag ci la sàkk woon ci njabootam ne leen bis bu fi bàyyi ko itam nañ wéyal bis boobu ku ñuy wax sëriñ moodu jóob di bindkat nekk itam nag ci kër soxna moomi mbàkke bintu seexul xaddiim def na sax way yu yaato yaatoo yaatu ci guddi googu nag di laylatul xadar di guddi nag goo xam ne ni soxna natu mbàkke nag bintu seexul xaddiim nag moo ko daa taxawu soo delloo nag ci way yi sëriñ moodu jóob def ma ngi cay leeral nag lu bare bare bare bari ci guddi googu nag di laylatul xadar ngëneel yi ci suñ borom taxawaay bi nga xam ne ni soxna may Maymunatu Mbàkke bintu Seexul Xaddiim amoon na ko ci ak yéen a jëm ci am ba laylatul xadar toll fii mu toll ñu teewlu nag way yi ci sëriñ du Jóob def di kat nan sant yàlla sil xadar ki sàkk laylatul xadar te sant may Maymunatu ngir moo fonk laylatul xadar nan jàpp kii di soxna may bu dëra dër ngir moonu may xéewal yu rëy te moonu may njariñ ci laylatul xadar nee na xamul moom benn bis nee na amul moom benn bis nee li mu am mooy benn bis te moo di laylatul xadar nan xam ne soxna may xadim faaxat li kulli sil xadim li annaha bintul xadim tey waayi laylatul xadar su ngeen ma dégloo ma xamal leen ci mbiram lu ngeen xamul xam koonu war moonu xamal leen am ci laylatul xadar soo ko jubee mu daa ree te soo waxee mu daa ree lum la waxit day daa yeyoo na laylatul xadar yaatu ba mel nekk mbambulaan tabe ba mel ne ak siyaan waame la romb nag sayaan yaatal na laylatul xadar du tudd nit fu mu newul te du la dig lu mu narul te du waxit lu mu xamul te fonk laylatul xadar moo woote laylatul xadar ci ama tam xasin bu wér loolaay juróom fukk yu wér ci ati laylatul xadar ganaar la togg ba mu ñor def ko ci dab yóbbu ko kër Seex Fallu Mbàkke ngën gi mbër ci guddik laylatul xadar ba soxna may agsee ci moom taxaw ca ba diriim Seex Fallu ubbiyam ci moom la am ngëneeli sil xadar Cheikh lu dal di koy dogul ne lépp luy xeet ndawal xamal ne dinga ko di amal ci guddi laylatul xadar ne ko xamal ne luy ginaar di nga ko romb weesu xar nag ak gëléem di nga ko defar ci guddi laylatul xadar mooy rey nag rey gëléem bawut lu sap bawut lu meem jàngalu quraanul karim ci guddi laylatul xadar fonk gi moo waral mu raw mboolem jigéente ku mu raw dootoo ko dab ne moo fi raw moo fonk laylatul xadar guddi gi mooy guddi gi gën may muunatooy sang bi gën fonk li gën mooy tax gën moo fonk laylatul xadar fonk gi laylatul xadar may na ko barke bu weeru koor ne moom ci barke bu weeru koor lay defee laylatul xadar yàllaa ne laylatul xadar xayrun min alfi sahri far Cheikh Bamba jox ko caat ma far muy woote laylatul xadar man du Jóob di taalubee maa way bayit yi ngir ma am ab yool bu rëy te bëgg am ngëneeli laylatul xadar maymunatun bintul xadim bégal na yàlla miy karim bégal na seexinaal xadim ndax fonk laylatul xadar donn na Fatima bu wér donn na Aïcha laylatul xadar joxoon na ab cër alxuraan ngir bàyyi ba fonkoon alxuraan yàlla nañ ko fay ci alxuraan ci barke laylatul xadar te yàlla fay taaw ba itam te fay sëriñ Moodu rakam ak seeni doom ak i sëtam amin ci laylatul xadar ñuy ñaan ci dara jey doomu xaadim rasool ba kadaa taxawu bis bi ñu tudde laylatul xadar yàlla na suñ borom yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem te lii di jafe-jafe réew mi itam yàlla na ko suñ borom saafara ci dara jey may mun a moomu amin jey may a moomu a a